mooy buur mooy doomi ndey Papa Diouf non lii ndam la buur waxal buur waxal. waaw ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi gërëm ñëpp. waaw ñi ngi gërëm ñëpp. ñi ngi remercier ñëpp. Uh-huh. Uh, déplacement bi rafet na. Uh-huh. sénégalais yi jàpp nañu. mais uh, dañuy nangu ndogal. parce que uh, ñun ay artistes lañu. Uh-huh. dañ fiy jóge dem ci yeneen réew. ñu ñuy accueillir di ñu teeru. di ñuy organiser ay événement looloo waral suñuy doomu artiste seen contrat yi ñuy am bitim réew ñuy am lu ñuy jox seen njaboot ak di présenter Sénégal dignement Odexia woo artiste la artiste la chanteuse la boo duggee ci internet bi da ngay gis ay bu ñu ko invité am nañu droit invité ko leneen lu ciy wax nag amul problème bàyyi nañ lépp ci loxo yàlla de toutes les façons Pape Diouf ñu ngi koy ñaanal yàlla yoon bu set wecc ah euh, rendez-vous bi ñu ngi jox ñëpp rendez suba ci concert ba stade Alassane Diogo li wér wér mooy objectif bi Bercy la ci kàttanu yàlla dinañ ko atteindre dinañ ko def guichet fermé yóbbu drapeau bi Sénégal France indiwaat fii ndam li Babacar comme ni ngeen ko gisee dafa mel ne xalam daa demoon bay nekk euh, buum nga daal di dog euh, ñu annulé li nga xamante ni tey mooy grand béguet bi waroon a am fii si euh, Esplanade Grand Théâtre bi ma dend ak benn soxna wax dëgg yàlla frustré naa na ndax bëggoon naa fecc tey ah. waaw gaa ah mais puisque tamit affaire état la moom on n'y peut nañ nangu rek parce que jaam ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam. Pape Diouf tamit lii mënu ko décourager parce que yàlla may na ko li koy may. de toute façon dañ koy encourager bu mu ko yàqal dara ci affaire am. na dem bés bi neex ñun ñu ngi toog di ko supporter de toute façon ñun ñu ngi si ginnaawam. incha allah en tout ah. merci le plaisir est partagé. ah ça fait rien ma toogaat ak ñeneen a ah, euh, bëggoon nañoo def li nga xamante ni mooy tànn bébé mais malheureusement dañ ko annulé alors mes chéris ngeen sance woon ba jekk xam naa naroon na macc rosa yi sànni talon yi mais nan ngeen ko dundee. ah niñ ko dundee lu yàlla dogal la kenn mënu ci dara lii yàlla dogal ndax dee moom bokkul ak dara waaw loolu laa gis man. Mhm. en tout cas yow nga jàppe ne lii mënu la fa kastal Pape parce que voilà lu am la loo xamante ne moom dogalu ko yàlla moo ko dogal. non Pape day dem dara du ko fa kastal moom day dem waaw incha allah Bercy moom day toj moom ndax ñëpp yéene nañ ko ko. dana ko yàlla defal jàmm mu egg jàmm def buzz waaw yéene bi egg na moom moo ñu jaral yëpp. en yéen frustré leen defu leen dara. non billaay defuñu dara nag yàlla moom moo ko dogal rek. li yàlla dogal kenn mënut dara chéri waaw waaye Pape moom day dem incha allah. macha allah chéri yàlla parce que leneen mënoon na xew. yàlla moom lu mu dogal kay mënu ci dara. d'accord Pape Diouf xale bu yaru la te ñëpp ñëwal nañ ko te incha allah beex si day neex bu soobee yàlla. Mhm. merci kontaan merci